beneen bi ci topp mooy livre bi naka la ñëwee dama génn di tukki di xool Sénégal comme ni ma ko wax ci introduction bi bi ma demee Qatar di seetaani coupe du monde bi gis ni gaz bi ñu am moom la Sénégal am te Qatar mën na organiser tey coupe du monde pendant que Qatar di organiser coupe du monde Sénégal tout le débat li leen intéressé woon mooy lan la Ousmane Sonko def ak Adji comme ni ma terminé introduction bi mais ma ne lii ça ça pose problème ah àddina bi ñëpp di dem ñu am gaz am pétrole war a organiser l' avenir tout notre problème mooy lan la Ousmane Sonko def ak Adji Sarr mais c' est un problème yooyu révolte yu mel noonu moo tax ma bind livre bi. livre bi amul kenn amul benn sénégalais laa wax. bu xam livre bi en dehors de kenn nit koo xam ni benn information laa doon récupérer ak moom bu xam existence su livre bi avant une semaine avant muy génn amul ci àdduna mais en dehors de sama famille y a des membres de ma famille yoo xam ni naturellement dañ koy xam <laughs> jigéen bi ngay nelawal par force booy bind livre da koy xam mais amul beneen sénégalais laa wax de beneen sénégalais boo gisee livre bi amul préface loolu moo tax livre ba ba une semaine avant muy génn ku dul Malick Gakou mosu ko ci Sénégal xamu ko parce que dafa am ay vérification yu ma soxla woon ci affaire politique Sénégal coalition yeeg ay datak yu ma xamul ku dul moom xamu ko keneen ku wax ci Sénégal ni xam na existence su livre bi ku dul Malick Gakou avant une semaine avant livre bi waxul dëgg en dehors des membres de ma famille bon parce que yeneen yi soxla moo vérification parce que li bi li ma bind yëpp ci document laa ko bindee mais coalition politique yi xam nga mag Malick comme dafa xam affaire te coalition yu bari moom moo ko defar am na yoo xam ne bi may bind la chapitre là sur euh, Idrissa Seck mburoog sow bi ak bi may bind la chapitre sur la tâche de la troisième candidature il fallait ma vérifier ay affaire ak moom bi may vérifier ak moom nag la comprendre ni man mii am na lu may bind mais en dehors de moom kenn ci senegal xamu ko képp ku wax ne xam na ko waxul dëgg ma ne li ma jubloon ci livre bi mooy susciter débat maanaam li ma jàpp ni mooy problème mu réew mi ma dut ci baaraam pour nit ñi joxe seen xalaat ba xam wala ministère de la pêche moo wax dëgg commission d'enquête yi ñoom rek lay xaar document yëpp mi ngi ma yor